ci réew mi moom li nit ñi di dund kum mën a doon ci nit ki kum mën a ci nit ñi ku ci dellu ci alxuraan settantal ko donte benn yoon la yow yaay gis ne li nit ñi di dund moo xam ci réew mi ak li ñuy tuddee maam sunnit yi li ñuy li ñuy tuddee njàngalam ahlu sunna wal jamaa ci àdduna bi dara boolewu ko ak li yàlla di wax yaa ngi gis ne li yàlla jàngale ak li nit ñi di def nii la def comme yàlla ak yàlla dara boolewu leen te loolu jamono bu ne ñu wane ko dangay gis nit ñëw ne nàngam dafa araam fan la ko yàlla araamal da lay xulli bët na la diw moo ko wax ñëw ñet ne la maam lii nii nangam diine la fan la ko yàlla jàngale ñu xool la ne la diw moo ko wax waa léegi diw diw yooyu nga xam ne da leer nag ku ne ne moomuñ diine binduñ nit ñi sàkkuñ nit ñi moomuñ nit ñi munuñ ci seen bopp dara bay mën ci kenn dara su ñeen laajee lii ah lii kan moo ko jàngale ñu ne lii diw a ko wax te diw mu mën a doon mënul kenn nga xam ne mënul lenn ci kenn jafe-jafe bi yëpp foofu la nekk yàlla topploowu leen lan la nit ñi wax yàlla topploowu leen di nit ñi wax rawatina comme fii fu mel ni réew mi suñu mag ñi nii nàngam yàlla topploowu leen seeni mag yàlla topploowu leen seeni baay yàlla topploowu leen seeni maam yàlla lim leen topploo mooy li mu wàccee mu jëm ci yéen léegi nag nit ñi xamuñ loola so ñewé di len wax dañ nan ah ñun suñu baay suñu maam ci di lañ ñëwoon te xamuñ ne loolu soo demee ci alxuraan yàlla mooy xam le ne seytaane ci boppam mooy digal nit ñi ñuy tontu loola nga xam ne soo ne leen wa ida qiila lahum ittabi'u ma anzala allahu ñuy la xaaru ba nattabi'u ma alfayna alayhi abaana soo ñëwee ne leen waaw yéen te ngeen a topp yàlla wàcce ñu ne ah ñun kat li ñuy topp mooy li nga xam ne moom lañ miinee suñuy bàyyi te li gën a doy waar mooy dañ ci dul boole xalaat fi mu toll ñun li ñuy topp mooy liñ miinee suñuy baay ci diine rek lañ koy wax ñun suñuy baay ak suñuy maam fii ci réew mi ci misaal lañ xamoon mooy ay néegu ñax ak xeet yooyu te nit ñi fi mu toll nii ku ci am dara la néegu ñax ya nga fekkoon sa baay ak say maam amoon ko da ngay ñëw fexe maam tabax li ñu wax en dur léegi nga gis ne kon yooyu daanaka soo xoolee day mel ni maanaam suñuy bàyyi li ñu yoroon ay saretu mbaam ak saretu fas léegi kenn ku ci ne li ngay ngéejoo mooy ab oto wala xeet yu mel noonu kon kay ak dangeen ngeen gis ne kon yooyu kon dafa mel ni maam ñàkk jëfandikoo xel yi ñàkk a xelaat dafa mel ne rax na ci ak it topp seen bànneexu bakkan ndax dangeen dem ba jàpp ne li ngeen doon dund moo gën a noppale li yàlla jàngale te li yàlla jàngale moo gën a noppale fuuf liñ doon dund ci domaine bu mën a doon nag ndax yàlla li mu wax dafa leen da wax na wa maa jaala aleykum fi diini min yàlla dafa wax ne ñun defaluñu ci diine lenn lu ay waxaat fee ne yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul xusra yàlla mu ne ñun lim namm ci ñun mooy lu jàppandi waaye nammul ci ñun lu jafe kon wax dëgg yàlla nit ñi kenn ku ci ne war na bàyyi xel doxali nam war na bàyyi xel maanaam ni nga xam ne noonu lañ bëgg a dundee du leen amal benn njëriñ rawatina fii ci réew du leen amal benn njëriñ li leen yàlla toppaloo mooy ay waxam li leen yàlla toppaloo mooy ab téeréem leneen loo leen topp lu dul loolu ci bokkaale képp la leen jëmale te loolu bu leen ci kenn nax te loolu jamono bu ne wax ko moo xam mii xaaj yi ngeen nekk ñuy yox ay ñi ay chia la ñoo ay sunit lañ ñi ay suufi lañ ñi tarixa sàngam lañ bokk ñee tarixa sàngam lañ bokk kenn ku ci ne di ndamoo la mu yor bokkaale la yàllaa ko jàngale loolu yàllaa koy jàngale yàlla moo jàngale ne ñi xaaj seen diina ay bokkaalekat lañ te mu ne bokkaalekat yi dañuy màbb seeni jëf te safara la ñuy sax waxaat na tamit bokkaale gi muy wax ne bokkaalekat yi dañ leen tere àjjana ñoom dañoo araamal ci ñoom àjjana yii yëpp yàllaa koy jàngale te nee na ñi xaaj seen diine ay bokkaalekat lañ fii réew mi koo fi gis mu ngi wuute woote woo ab xaaj ba noppi di ndamoo xaaj boobu mu ne te yàlla nee na ñi nekk ci loolu ay bokkaalekat lañ te ñooñu safara la ñuy sax te nit ñi ñoom fu ñu toll ñu ngi ragal safara te xamuñ ne ñoom ci autoroute bu jëm safara lañ fi nga xam ne autoroute ba jëm safara ñoom ci lañ tegu te soo leen koy wax kat dañuy jàpp da ngay jàpp ne ah yow da nga leen di diingat wala yow da nga leen wax li wala da nga wax daal te yow waxoo say wax li yàlla wax nga wax li am solo mooy nit ñi nañu dëgmal yàlla. dafa jot sëkk nit ñi kenn niñ koy waxee ñu détaché leen ci nit ñi rattaché leen ci yàlla ndax nit ñi nga xam ne ci li ñuy wax ne ñoom la ñuy yaakaar ak ñoom la ñuy lii ak ñoom ña laa nit ñooñu xam nañ ne ñoom duñ dara ci mbir yi xam nañ ne mënuñoo jëriñ seen bopp bay jëriñ kenn rawatina sax lu leer la ne ñoom la ñuy jëriñu seeni intérêt bopp la ñuy wut a sàmm ci loola su dara xewee ñu am ñu yebal ñoo xam ne ñoo ñëw di séddale somnifère yi ngir nit ñi maa ngir nit ñi di gën a mën a nelaw ma ñuy tuddee waaraatekat yeeg waxtaankat yeeg xeet yooyu ndax lu mën a xew seeni nelaw la dundee comme seeni nelaw lañuy ñuy dundee duñ bëgg ngeen yeewu duñ bëgg ku leen yee duñ bëgg ngeen yeewu duñ bëgg ku leen yee li wax ne kiy dundee say nelaw du bëgg nga yeewu waaye nekkul na du bëgg rek nga yeewu waaye du bëgg sax ku la yeefar te yàlla dogal na macha allah waxtaan yi moom képp ku koy déglu. di nga yeewul sa bopp dootoo don jaamu kenn ku dut yàlla dootoo liggéeyal kenn ku dut yàlla dootoo sóor kenn ku dut yàlla loolu ñun ñii duñ ci dara keneen du ci dara yëfu yàlla la ku ci yeewu da ngay xam ne sa jubluwaay kenn la yàlla la du benn mbindeef kum mën a doon du benn mbindeef nga xam ne li la leer yow yaa koy dund yow sa diggante sa borom ndax yi fi nekk nii nit ñi ñoom ñoo koy ndax kenn forcé wu ko waaye yow yaa jël buum gi lonk sa baat toog soo ko lonki woon rek mbir ma jeex nga dëgmal yàlla nag day wax nit moom lim lay digal foo ko fekk ay intérêt boppam lay doon waaye yàlla moom lim lay wax sa intérêt yow nit ki lay doon li la yàlla di digal sa njëriñul bopp la en tant que nit li la yàlla di tere lu lay lor la en tant que nit nga xam ne yàlla moom lim lay digal sa njëriñ la lim lay tere lu lay lor la yow mu bañ nga loru ñee nag liñ lay digal ñoom seen intérêt bopp la da nga leen topp rek liñ bëgg nga nekk ci di leen liggéeyal di def ñi di def ñi di def naa te yéenay waxee da ngeen di julli di wax di wax jamono bu ne iyaaka naabud di wax na yàlla yow kenn képp la ñuy liggéeyal moo tax yu mel ni yu mel nii nit ñi dañ ko war a bàyyi xel te yàlla li mu wax ne walladina taxadu min dunihi awliyaa dañuy wax naan ma naabuduhumu illa li yuxarribuuna ila allahi zulfe إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار da xam ñi nga xam dañuy wéeru ci kirut yàlla ñom dañuy wax ne ñoo ñu wéeru ci ñom dañuy ñom defu ñu dul di leen liggéeyal ngir ñu jegal leen yàlla te yàlla moom liggéeyaloo wula kenn moom santu la nga liggéeyal kenn ku dul mom ba da ngay liggéeyal diw ngir mu liggéey nu tudd ngir mu jegal la yàlla te koku mom xam sax li xew li yàlla wax la muy def dara boole wu leen ay wax lu ko soob la rek yooyu kenn ku ci ne war na ci bàyyi xel kon wax dëgg yàlla macha allah nit ñi nañ bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom la ñuy toppat ña leen di liggéey la di maanaam di séddale ay somnifère ngir nelawloo nit ñi kenn ku ci ne war na koo bàyyi xel ne nit ñi dellu ci téere bi yàlla dellu ci yàlla loolu mooy seen jàmm fii di seen jàmm fee su ngeen ko deful da ngeen di sonal seen bopp fii te soo leen demee fee mbugal képp ngeen fay fekk loolu nag njàngaleem yàlla nekkul suñuy wax du lenn yàllaa ko waxal boppam te ku dem ci vidéo yi di nga ci fekk ay yoon ñuy indi ay yi nga xam ne suñu borom ci lay wax loola waaye fàtte gi nga xam ne nit ñi moom lañ fàtte yàlla ba tax yàlla fàtteloo leen seen bopp sooy ni wax dara duñ xelaat sax ne yow yàlla nga leen di wax nga xam ne nit rek la ñuy gis comme li may faral di wax bokkaalekat foo ko fekk moom nit rek lay gis nit sax soo ñëwoon di ko wax yàlla nee ne loolu yàlla kat moo wax lii ci saar sàngam aaya sàngam dañuy yow ñoom day mel ni waxoo leen yàlla day mel ni yow da nga wax ne man maa wax fekk ne yàlla moo wax yow da ngay fàttali yàlla moo wax yow da ngay jottali kon li am solo loolu la nag kenn ku ci ne delluwaat ci téereb yàlla na kenn ku ci ne delluwaat ci yàlla di bàyyi xel yàlla boromam ci lépp lu muy jëf lépp lu muy wax